أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala ñu ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu ñu ngi ci istuwaaru yusuf alayhi salaam ñu ngi tolloon fi mu war a dugge kaso mu ne waxaahu alayhi salaam yadxulu sijin mu ne mu ngi nii tey yusuf alayhi salaam di war a dugg kaso donte ne buur bi setal na ko wa ala ragmi min zuhuri baraatu yusuf wa i'tiraafi imraatul aziz amaama niswa annaha hiya allati raawadathu an nafsihi wa annahu istaasama wa rafada an yafala ay cheyin yuxdibu llahu jalla wa ala mu ne donte ne yusuf alayhi salaatu wasalaam setal nañ ko jabaru buur bi reconnaître na ne moom moo doon sàkku yuusuf ci kanamu jigéen ñi la taxaw ne leen man mi maa doon sàkku yuusuf maay ki ko doon provoqué maay ki bëggoon sëy ak moom donte ne lii lépp am na moom mu lànk ne du def li ma ko sant mu lànk ne du def luy merloo yàlla donte ne lii lépp am na terewul tëj nañ ko kaso ala anna alxabar kaanat qad intashara fi lmadina kulliha xabaar bi tasaaroo na ci biir dëkk bi ñépp yëg nañ ko ne yusuf alayhi salaam tey dañ koy tëj kaso fa kaana la budda min fiili ayu cheyin xata yansa nnaas hadihi lqissa nee na lan moo tax nag ñoom ñu préféré tëj yusuf kaso lenn poussé wu leen pour ñu tëj ko mooy lu dul xëy na bu soree biir palais bi sori nit ñi bëtu nit ñi ñu isolé ko ñu tëj ko kaso su boobaa nit ñi danañu fàtte xew-xew bi am loolu moo tax buur bi ak jabaram préféré soril ko nit ñi isolé ko denc ko ci kaso bi pour nit ñi fàtte histoire bi wa hatta yuhafiz asizu misra wa mratahu ala mazharil ijtima al laiq bihima bokk na ci encore li tax ñu denc yusuf pour lan buur bi ak jabaram seen personnalité mën a delluwaat ci ñoom ñu mën a occupé waat seen place ci biir société bi nee na lii la mbir mi xewee wa hakaza xaala ashaabul buyut arraiqo gis ngeen xew-xew bi nga xam ne moo xew ci biir kër buur bi mboolem borom alal yeeg personnalité yeeg buur yeeg ñi mel ni ñoom xabaar yu mel nii day xew seeni biir kër léeg-léeg du ñu mun a gérer seeni famille seeni doom yu góor wala yu jigéen du ñu mun a gérer yenn saa yi seen jabar yenn saa yi du ñu mun a gérer seen bopp lu mu leen di jural mooy ay xew-xew di xew ci seeni biir kër su boobaa ñan la ñuy teg toor bi mooy ña fa néew doole mbindaan ya fay liggéeyee léeg-léeg ñu sàcc ci kër buur dara wala benn kër patron benn këru boos dara xew-xew am fa doomi borom kër def def ko wala jabaru waa ji def ko fuñ kuñ koy taxal mbindaan ma fay liggéey wala booy bi roose fleur yi wala kii bale wala chauffeur ba souvent loolu mooy xew ci kër yi nga xam ne sunu borom subhanahu wa taala am na lu mu leen dénk su ko defee loolooy li nga xam ne tey moo xew ci kër buur jabaru buur provoqué na benn jaam ci ñi ko doon wër di ko liggéeyal lan la ñu mujj def comme tële nañ mënuñ ci dara ñu daal ne kaso fa laysa hunaka ashal indahum min as- ila sijini nekkul lu fa gën a yomb rek lu ñu war a teg ci kaw waa ji mooy ñu tëj ko kaso jeex na dañ ko denc kaso xata yaqulu linnas innahu huwa almuttaham pourquoi ñu tëj ko kaso mooy pour nit ñëpp daal di koy accuser benn xabaar wala benn xew-xew bu amee ci diggante ñaari nit wala ñaari kër wala ñaari mbooloo ñu jël ñenn ñi tëj kaso ñi ñu tëj kaso ñooñu ñooy nit ñu yor toor ci bëtu nit ñi léegi jël nañ Yusuf sànni nañ ko kaso su ko defee bët yëpp dana tourné ñu ne Yusuf moo yenu toor bi ci jamono yooyu mbir mi daan nay leer ñu daal di dugal Yusuf kaso bila zanbin siwa annahu rafada an yafala alfahishata dan mooy lan Yusuf yan bàkkaar la def ban crime la fàggu bañ koy tëj kaso lu dul bañ naa def lu bon jabaru buur bëgg na ma sëy ak moom ma lànk ñu ne loolu crime la ñu dem tëj ko kaso loolu de mooy bàkkaar bi Yusuf def bila zanbin siwa annahu rafada an yafala alfahishata walam yasdir al amra bi sijini li muddatin maalum bal sadara li amrin bi sijinihi hatta hiin loolu tamit bi mu amee buur bi joxe ndigal nañ ko tëj kaso li ñu xamoon ci ku ñuy tëj kaso lan lañ ci xamoon mooy buñ koy tëj ñu ne tëj nañ ko un mois wala deux mois wala un an wala fukki at waaye Yuusuf moom bokk na ci tooñ encore gi ñu ko tooñ mooy nañ ko tëj ba diir bu ñu xam kenn xamul kañ lañ koy libéré kenn xamu ko moom daal dañ ne tëj leen ko rek xatta hiin ba benn temps mooy ban temps mooy saa yu ñu demee ba mu neex leen ba nit ñi fàtte xew-xew bi fi xewoon ba génération bi sax daanaka bi ko doon wax mën nañoo dee wala mën nañoo jóge fi ñu daal di koy libéré loolu daal mooy seen objectif mooy seen jubluwaay yaani li muddatin gayru maalum ci jamono boo xam ne kenn xamu ko wa haa huwa asabu anwaa'i sijini nee na lii nag moo gën a metti ci tëj kaso ndax ki ñuy tëj su xamee ne deux mois lay tëdd bis bu xëyee day compter jours yi lu muy gën a jege muy gën a kontaan mais yow boo xamee ne dañ laa tëj xamoo kañ lañ lay bàyyi loolu dafa métti ñu bàyyi la noonu ci biir rek nga nekk suñ la ne waaye yow kañ ngay génn nga ne ah man kay ñaanal leen ma yàlla xam nga loolu wax dëgg yàlla kaso gënu koo métti te loolu mooy li ñu def Yusuf ndeysaan ñu tëj ko tuumaal ko ëpp ko doole tëj ko ci diir boo xam ne waxuñu ko kañ lay yem wa ala ragmi min kulli zalika daxala yusuf asijin wa huwa haadiu nafs mais nitu yàlla yi léegi nag léegi nag li xew mooy bandi bandi day def musibaam ñu tëj ko ñu bugg ñu bugg ko layal ne yusuf duggoon na kaso caaxaankat day def caaxaanam ñu jàpp ko tëj ko nit ñi di ko layale ne kaso du gàcce Yusuf duggoon na kaso waaye Yusuf li ko dugal kaso ak li dugal ñii kaso est-ce que benn la est-ce que Yusuf dafa rey nit est-ce que Yusuf dafa sàcc est-ce que dafa fen lan la def dañ ko tuumaal yàlla moo ñu ko nettali ne Yusuf dañ ko tuumaal ëpp ko doole tëj ko léegi nag ñun fii ci Sénégal ay nit dañuy def banditisme ba pare def seeni caaxaan ñu jàppale ne leen ràpp ci kaso bi ñu koy layee ne yee Yusuf duggoon na kaso kaso Yusuf ak kaso yi ñuy du benn parce que kaso Yusuf mbégte la moo tax bi muy dugg kaso daxala wa huwa haadiun nafs bi muy dugg mu ngi bakkanam a ngi teey tranquille am mu ngi conscient conscience am mi ngi tran mi ngi yem mi ngi dal mi ngi am tranquillité moom nekkul di dugg naan li ma def di nga am na ñoo xam bu ñu duggee kaso seen digganteeg yàlla xam nga dugg kaso sax nit ñi rek ci nit ñi la mais sa digganteeg yàlla moo gën a ëpp solo ci li li xew nit ñi mën nañ laa weddil wala nit ñi mën nañ laa tuumaal mais sa digganteeg sa borom moom dara nëbbu fa ndax laa yaxfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama mbokk yi Yusuf bi mu duggee kaso bakkanam a ngi dal xelam a ngi dal mu ngi teey li annahu naja min muradati imraatil aziz allahu akbar lu tax Yusuf bi mu duggee kaso xelam a ngi dal mooy kaso moo ko gënal li ko jigéen ñi di woow moo tax mu ne yàlla man de liñ may wax kaso moomu ko gënal kii philosophie bi wute naa philosophie sénégalais yi d'accord ngeen walla jabaru buur yor personnalité nopp la di mën di wéet ak yow yenn saa yi sax nga bëgg dara mu jox la xaalis yenn saa yi nga bëgg oto mu jox la yenn saa yi nga bëgg tukki mu jox la ci ñun tey mu ne la lii laa bëgg nga def ko ci ñun fii dañ koy def wala duñ ko def tontu bi mooy dañ koy def lu dul ku yàlla musal xoolal Yuusuf moom bi ko jabaru buur bi waxee lii lan la wax mu ne yàlla kaso moo ma gënal lii jabaru buur bi di ma woo moo tax bi mu duggee kaso dafa sant yàlla lu tax ndax rëcc na ci pexe jabaru buur bi waaye rëcc na ci mbooleem jigéen ñi yàqu ñu nekkoon ci société ba doon ko bëgg a xëcc ci seen bopp lan la wax moom sunu borom subhaanahu wa taala bi mu ñuy nettali Yuusuf bëgg-bëggam bi pexe jigéen ñi taxawee jigéen ñi taxaw di ko woo ci seen bopp Yuusuf lan la wax yàlla diñ ko nettali ci saar bi surtout Yuusuf aya 33 mu ne dafa ne rabbi assijinu ahabbu ilayya mimma yad'uunani ilayhi yow sama boroom jigéen ñi liiñ may woo kaso moo ma ko gënal ma dugg kaso moo ma gënal ma dem sëy ak jigéen ñi ñun ñun ñu sëy ak jigéen ñi moo ñu gënal kaso ndax yow léeg-léeg sax bu la benn xale bu jigéen waxee loolu nga lànk nga dem di ko wax say xarit dañ naan la mais yow booy est-ce que normal nga yow yow dootoo tekki non yow saye yow jeex da ngay gis ndeysaan nit ñi dañ lay xas dañ lay xas yow dootoo amati ndeysaan parce que nit ñi am amu àdduna ak yi poñet yi poñet yi moom moo leen jaaxal waaye Yusuf dafa am ndombo tànk bu raw lii ñu koy woo mu war a takk loolu moo ko gënal lépp moo tax mu tànn kaso moo ko gënal mu ne yàlla kaso moo ma gën a liñ may woo wa daxala maahu sijin fatayaan ñu daal di ko ràpp ci kaso bi tëjaale ko ak yeneen ñaari xale yi mu bokkaloon nekk ci biir kaso bi sunu borom di ñu ko nettali ba tey ci même saar aaya 36 mu ne wa daxala maahu sijina fatayaan qaala ahaduhuma inni araani asiru xamra وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين sun borom nee na Yuusuf dugg na kaso waan nag yeneen ñaari xale yu góor ñu nekk ñaata ñu nekk ñett ba ñu duggee kaso ñu nekk fa ay fan wala ñu nekk fa ay weer wala ñu nekk fa ay at kenn ki nekk kenn ki daal di jékki-jékki daal di ne dafa dafa gént kenn ki ne dafa gént lan la gént mu ne inni ara inni araani asiru xamran man day dama gént ñu indil ma ay palaat raisin nekk ci ma jël raisin bi di ko nal ci ay verre ba ndox mi wàcc ci kaas yi ma jël ko jox buur bi mu naan kenn ki moom loolu la gént keneen ki ne inni ara araani ahmilu fawqa rasi xubza man de damaa gént ma yenu benn pañe ci biir pañe bi mu am mburu waaye pañe boobu ma yenu ay mburu lekk ci nekk ci taakulu tayra minhu ay ay picc ñu ngi naaw di wàcc ci pañe bi di coppati ci mburu moom ma yenu nabbi inaa bi taawilihi yow yusuf ñu ngi lay ñaan nga firil ñu gént gi lu tax inna naraka min al muhsinin ndax yow gis nañ la ci biir kaso bi nga bokk ci ñi rafetal yusuf bi mu duggee ci kaso bi dafa changé kaso dafa ko changé changé na ko ci comportement changé na ko ci wàllu set changé na ko ci wàllu doxalin changé na ko changé na ko ba kaso bi lépp soppeeku anam yépp a soppeeku ci biir kaso bi biñ ko ne firil ñu gént gi lan la njëkk a def mooy mu def loolu missionnaire yi di def missionnaire yi lan mooy seen mbir duaa yi lan mooy seen mbir wootekat yi ci yoonu yàlla lan mooy seen liggéey mooy occasion bu ñu am dañuy profitoo jàllale message yu yàlla subhanahu wa taala lan la ko gaa yi laaj ay gént waaye bala mu leen di firil gént gi daf leen yóbbu ci kalimatu tawxid qabla ayu shay daf leen yóbbu ci tawxid balaa dara di xew suñ borom subhanahu wa taala dinu nettali yusuf bi ko gaa yi indilee gént gi wa badaa yusuf ma saahibi sijin yusuf commencé ak ñaar ñoo ñu ko tëjandool ci li nga xam ne moom moo leen intéressé qaala mu ne leen laa yaatikuma taamun turzaqaanihi illa nabbatukuma bi taawilihi qabla an yatiyakuma dafa jékki-jékki rek day jékki-jékki ne leen tey xam naa lu ñuy añee day yow fajar ne leen xam naa tey lu ñuy añee wala xam naa lu ñuy ndékki wala xam naa lu ñuy reere su gaa yi waxee lan la mu daal leen di wax lan la ñuy ndékkee tey su ndékk bi ñëwee muy lool mu ne leen xam naa lu ñuy añee bu ndékk bi ñëwee muy lool lii nag moo tax ba ñaari gaayee ba ñu géntee lan lañ def ñu jubal direct ci moom comme gis nañ ne daf leen di informer xabaar yoo xam ne bu leen ko waxee mbir mi am bi ñu géntee seen gént ñoom ñaar laa di jubal direct ci moom ne ko wax dëgg yàlla bëgg nañ nga dimbali ñu ndax inna naraaka minal muhsinin gis nañu vraiment yow ku rafetal nga li ñuy wax lépp ci wàllu lu ñuy lekk wàllu lu ñuy naan su ñëwee loolu mooy li am mu ne zalikuma mimma allamani rabbi lii nag ma leen di jox ci ay xabaar ay information ma naan leen lii lii la muy nekk lool nekkul sama góor góorlu nekkul sama xam-xam nekkul man maa ko créé waaye zalikuma mimma allamani rabbi sama borom moo ma ko xamal gis ngeen yéen nag seen gisaanekat yi ak seen seetkat yi li ñuy wax leneen te dafa bokk ci nit su la yàlla mayee xam-xam nga delloo ko ko gis ngeen li muy am xam-xam yépp nekk ci biir kaso bi ñu ko laajee lan la wax mu ne lii yàlla moo ma ko xamal mimma allamani rabbi sama borom moo ma ko xamal inna zalika min axbaari bilmugayabat laysa bi kahana wala tanajjim wala tanjim wa innama huwa bil ilhaami wa waxyin min allah nee na lii yusuf di def du njabar de du ak mbuxaaba du di xool biddéew yi di am information du seet du gisaane waaye nee na ilham la yàlla moo ko yenkewal ilham mooy lu la yàlla di xamal wa waxyun min allah nee na waxyu la bu ko yàlla di dee ne ko lii mooy xew mu daal di koy xam lii yépp yusuf bi gaa yu ñëwee laaj ko rek mënoon na leen firil gént bi waaye daf la commencé di leen waar mu ne leen inni taraktu millata qawmin laa yuminuuna billah maa ngi ndigal ni man yusuf dama bàyyi yoonu gaa yi nga xam ne duñu jaamu yàlla inni man yusuf taraktu bàyyi naa millata yoon qawmin ay nit yoo xam ne laa yuminuuna billahi gëmuñu yàlla lan la ñu war a dégg fii mooy jullit day bàyyi yoonu nit ñi gëmul yàlla bépp yoon booy topp na fekk yoon boobu tegu ci siraatal mustaqim bépp yoon bu teguwul ci siraatal mustaqim yoon boobu yoonu ñu sànku la yoonu ñu gëmul yàlla la donte ne yoon boobu nag dañ koy tuddee yenn saa yi lislaam yow yaa koy tuddee rek mais yàlla suñu borom subhanahu wa taala borom xam-xam yi xam nañ ne yéen seen yoon wi yoonu jahannama la du yoonu islaam te loolu tey dafa bëri Sénégal ay yoon ay tarixa ay kër yu ñuy tuddee lislaam te dara du ci lislaam xoolal ki bëgg ne man ci yoonu lislaam laa nekk te du julli ki bëgg nekk ci yoonu lislaam du woor ki bëgg yu nekk ci yoonu lislaam ëppal ñeenti jabar ki bëgg a nekk ci yoonu lislaam naan sàngara def lu bon góor ngir jigéen ñi jaxasoo di fecc guddi ak bëccëg loolu ban diine la moo tax Yusuf mu ne leen inni man mii taraktu dama bàyyi bu yàgg millata yoon gaa yi nga xam ne qawmin laa yuminuna billahi gëmuñu yàlla yemuñ ci lool de ñoom nit ñooñu waaye wahum bil axirati hum kafirun li tax ñu ba li tax ma bàyyi yoon woowu mooy nit ñooñu dañoo gëmul alaxira gis ngeen tey li ëpp ci sunu dund li tax ñu mën a dugg ci ay mbooloo caaxaan ay mbooloo fo mbooloo yoo xam ne ñun la gën a wóor ne yow xam nga ne mbooloo mi duñu ay jullit lu tax nit ñi nangu cee dugg mooy ñàkk gëm allaaxira sénégalais yi seen problème yépp mooy allaaxira lañ gëmul moo tax ñu mel nii nu mel te nit ñi bu ñu noppee gëm allaaxira seen dund du baax dafa dafa bokk ci arkaanul iman mooy lan dafa bokk ci ponk ngëm yàlla lan al imaanu bil yawmil axir ponk ngëm ñaata la ponk ngëm juróom benn daf cee bokk al imaanu bil yawmil axir mooy nga gëm alaaxira léegi nag yow boo gëmul alaaxira nag ki gëm alaaxira moom mooy dégg fajar nodd mu yeewu jóg julli si jàkka bi moom ngay dénk sa xaalis boo ñëwee mu remboursé la moo lay liggéeyloo boo weer dee mu fay la parce que day ragal alaaxira bu demee day dajeeg yàlla waaye ki gëmul alaaxira lu muy wax ah ku da ngay dégg ñu ne am na ñoo xam ne dañu naan ku ma fayul fii perte nga de ku ma fayul fii li ma la yoreel perte nga kon kooku am na confiance ne bu demee alaaxira kenn du ko def fayal ñi wala ku ma liggéeyloo fii fayuma la perte nga maanaam fii ci àll aduna ku ma mënalul dara bu demee alaaxira da ngay perte parce que man du ma du ma fa sax taxaw di wax ak yow xool xoola gëm-gëm yooyu bu ko nit gëm yi wala nit gëm ne politique. àddina la yam yeggul àllaaxira comme sunu politiciens yi loolu la ñu gëm moo tax lu ñu leen neex def soo waxee ñu ne la politique àddina la yam yemul àllaaxira àllaaxira leneen la fa yàlla di rek la lu dul politique loolu moo tax nit ñi bu ñu gëmulee àllaaxira seen dund mun ta baax moo tax Yuusuf mu ne dañ naa ci nit ñi nga xam ne gëmuñu yàlla waaye gëmuñu àllaaxira àllaaxira ñoom wa hum bil aaxirati hum kaafiruun dañoo weddi àllaaxira kon bu mu wat bu mu defee lii ba pare lan la ci teg mu ne wattabaatu millata abai ibrahim wa ishaq wa yaqub man day topp naa sama yoonu bàyyi allahu akbar sama bàyyi yoon wi mu toppoon kan mooy bàyyam yaqub nee na kooku yaquba moomu dafa toppoon yoonu bàyyam kan mooy bàyyam ishaq Isxaaqa moom dafa toppoon yoonu baayam lan mooy yoonu baayam kan mooy baayam Ibrahim Ibrahima mooy xaritu yàlla bi ndeke boo juddoo ci fu baax lan nga war a def danga war a respecté mbaax googu mais yow waroo koo yàq moo tax mu ne wattabaatu topp naa millata abaa'i sama yoonu baay Ibrahim sama yoonu maam Isxaaq sama maam la yaaqub sama bàyyi loolu lan la ci jublu mu ne ittabaatu diina al anbiya dama topp diina yonent yi laa diina li ahli shirki ndax ñi bokkaale amuñu diine wa dalal ñi réer amuñu diine wal xard izhaari anna man yabiitu nubuwa min bayti nubuwa mu ne li ñu su bëgg a wax mooy feeñalal nit ñi man mii dafa am fu ma bokk ci këru yonent laa bokk moo tax yonent sallallahu alayhi wa sallam bu ñu waxoon yusuf lan lay wax ku baax doomu ku baax doomu ku baax doomu ku baax moom yonent la papaam yonent la maamam yonent la mamaatam yonent la kooku ku mel noonu est-ce que war na bon waroo bon moo tax mu ne ba muy jeexal aaya bi mu ne maa kaana lana an nushrika billahi min shay allahu akbar man naa ñun yàlla waruñu defal taraanga bu réy bii ba pare ñu dellu di ko bokkaale maa kaana lana yellul ci ñun ñun waa kër ibrahim ñun waa kër ishaq ñun waa kër yaqub man yusuf mi yellul ci man an ushrika billahi may bokkaale yàlla kon yow waroo nekk jullit ba pare di bokkaale waroo judd nekk jullit nekk ci diine lislaam nekk ci ginnaaw yonent yàlla muhammad di bokkaale loolu ku nekk da nga ko dugal ba ko dugal sa bopp parce que yàlla moo la baaxee nga bokk ci xayru umma kuntum xayra umma kon yow waratoo bokkaale mu ne maa kaana lanaa yellul ci ñun an nushrika billahi min shay yellul ci ñun ñuy bokkaale yàlla ak dara min shay shay baatu shay mooy la ci arab mooy dara dara mën na nekk nit mën na nekk garab mën na nekk lam mën na nekk béjjën mën na nekk xaaw mën na nekk pitaaw mën na nekk bàmmeel min shay dara warulaa tax ngay bokkaale yàlla dara ak lu mu mën doon dara waru la ko jaral mu ne maa yambagi lana yellul ci ñun maachara al anbiya ñun mboolem yonente yi an nushrika billahi shay'an ñuy bokkaale yàlla ak dara lu tax maa istafaana wa in amina alayhi mu ne ndax yàlla daf ñu tànn wàcceel ñu ay xéewal istafaihi lana yàlla moo ñu tànn wa in aamihi alayna yàlla moo ñu jagleel xéewal kon ñun lan la lan lañ war a def mooy delloo ko njukkal sant ko su la yàlla defee lay xéewal lu la ci war wa amma bi ni'mati rabbika ba hadis bu la yàlla dafa lay xéewal da nga ko war a sant nee na zalika min fadlillahi alayna wa ala nnaas walakin aksara nnaasi la yashkurun allahu akbar lii yàlla defal ñu lii ñu am mooy ma nekk yonent sama papa nekk yonent papaam nekk yonent sama maam nekk yonent ma juddoo ci këru yonent lii min fadlillahi xéewal la gu ñu yàlla jagleel ñun waa kër gi xéewal la gu yàlla jagleel doomu aadama yi zalika min fadlillahi alayna waa est-ce que ci ñun rek la mu ne wa alan naas ak mbooleem nit ñi yàlla moo leen jagleel yonent yi ñëw pour génne leen ci bokkaale yóbbu leen ci tawxiid sunu boroom doon na nekk sunu boroom comme ni mu ko nekkee te du dañ di ko nekk moom dong moo koy nekk amul keneen ku koy nekk mun nañu jaamu leen ma ku ko jaamu boo dee mu dugal aljanna ku lànk mu yóbbu la safara te du yónni benn yonent du wàcc benn téere wala waaye ci yërmandeem la yónnee ci biir jaam ñi mu tànn ci ay nit ay yonent yu ñu fàttali lan mooy sunu mission ci kaw suuf ñun lan lañ fi ut si tànn ay nit baaxal leen ba ñu baax mu yónni leen ci ñun mu ne dem leen ngeen fàttali nit ñi lan la ñu uti kaw suuf yemu ci mu yox yonent yooyu ay téere pour lan pour nit ñi ñu leen di fàttali ñaata ay ngeen jàng ci alquran fa zakkir ñaata fa zakir la mooy fàttali leen fa zakir na ngeen fàttali innama anta muzakkir yow yonent bi fàttalikat nga gis nga pour ñu fàttali ñu loolu waaye xéewal gi yàlla defal doomu aadama yi ñu bari xamuñu ko moo tax bi muy tëj aaya bi muy aaya 38 ci suratu yusuf ba tey mu ne walakin aksara annaasi laa yashkurun lépp ci nit ñi duñu sant xéewalu yàlla lan la wax zalika min fadlillah lii xéewalu yàlla la bu muy daaneel aaya bi mu ne walakin aksara annaasi laa yashkurun ñépp ci nit ñi duñu sant yàlla waaw loolu li leen koy wax rek mooy Sénégal yi nii di ngeen gis ñu organiser fi bépp bépp ndaje ne dañuy sant mais doo dégg ñu ne dañuy sant yàlla kan moo fi mës a gis benn baas ñu ne baas bi pour lan la ñu ne dañuy sant yàlla acca keneen rek dañuy sant Sàmba dañuy sant Demba dañuy sant Móodu dañuy sant Paate dañuy sant Yero kan ci ñun fi toog moo mës a gis baas bi mu juddoog léegi mu gis ay nag yi ñu yeew mu ne lii lan la ñu ne dañuy sant yàlla bismillah yëkkati sa loxo waaw ma ne yàlla moom dafa yaroowul sant ah yeyoo na sant wala yeyoowul sant wallahi loolu yàlla rek moo ko moom sax moom rek lañ ko war a defal te pourtant daf ko sàkku ci ñun de daf leen def ñu ne xéewal yi ma leen di defal na ngeen ko sant est-ce que sant mooy lekk ba suur rek daa di naan sa ñaari butel litre boisson ne géex alhamdulillah loolu mooy sant boroom xam-xam yi nee nañ assukuru tarkul maasi sant yàlla mooy nga bàyyi mooy yàlla dafa am benn boroom xam-xam bu mag bu bokk ci boroom xam-xam yi réew mi dafa mës a dajale mbooloo mi ñu toog taalibe yi mu ne leen ndax amul ci yéen kuy yàq dugub amul ci yéen ku yàq dugub ñooñu ne ko ah sëriñ bi dugub kan moo koy yàq niñ koy amee fi ñuy jaar ba dugub nekk dugub ba bañ koy jël di ko dugal suñu saako di ko yóbbu ci magasin yi ku koy yàq mu ne waxuma loolu de ñu ne ko loo ci jublu mu ne mooy nga reere dugub ba sa biir fees nga dem moye ko yàlla loolu mooy yàq dugub ñaata ci ñun ñooy reer cere ba seen biir ne tip wala lekk ceeb ba seen biir ne tip wala lekk mburu ba seen biir ne tip dem fanaane ko soirée ba ba ba ba fajar nga ñëw wala nga dem moye ko yàlla ba fajar nga ñëw mu ne loolu mooy yàq dugub lekk ba suur dem reesale ko ci lu dul yàlla ñaata ñaata ñun ñooy lekk ba suur dem reesale ko ci stade reesale ko ci football mbaa bëri ñaata kenn loolu mooy yàq dugub ndeke mu ne walakin aksara annaas laa yashkuruun li ëpp ci nit ñi duñu sant yàlla laa yashkuruuna fadlallah duñu sant xéewal yi leen yàlla defal mbokk yi ñun ñu toog ci biir jumaa ji ku nekk fi nga toog xoolal sa bopp nañu tàmbalee ci sa bët yi bu benn waaye ñëwoon yor cinquante milliards milliards cinquante mu ne la jaay ma benn bët benn bët jaay ma ko am seg yaa ngi nii bismillah xaalis bu tooy xepp cinquante milliards jaay ma benn bët kan ci ñun moo koy jaay benn bëtam su la benn waay waxee loolu looy wax xanaa dama dof yow bët yow sama bët bi ma la koy jaay kon man après gis nga su la woon jaay ma ñaar yëpp nag su la woon jaay ma benn nopp kon yi ay xéewal la yoo xam ne yow xamoo xam nga ne leen yàlla defal parce que yaa ngi ni indi nañ la milliard nangoo koo jaay te kenn du ci sant yàlla doo xool ba ngoon ngay tëdd nga ne ay sama bët yi maa ngi sant yàlla xam nga ñan ñoo xam njëriñu bët est-ce que xam ngeen ñan ñoo xam njëriñu bët mooy ñi ko amul am na benn woykatu américain bu tuddoon Stevie Wonder yaakaar naa xaw ma mu ngi dund xaw ma dee na dafa mës a judd gumba lan la doon wax docteur bu fexe ba ma gis sama yaay ak sama doom nu ñu mel rek dinaa jox sama alal ku fexe ba ma xool leen rek benn yoon naa xaaj sama alal jox la genn wàll kon ñun ñun xamuñu njëriñu bët waaye nañ bàyyi bët nañ ñëw ci nopp lan moo tax ngeen toog fii di ma déglu lu tax li may wax neex ci seen nopp yi parce que da ngeen koy dégg imagine leen boo dul woon dégg kon ñun xamuñu njëriñu dégg ñi ko amul ñoo ko xam wax amul ñuy judd te waxuñ amul ñuy judd te dégguñ amul ñuy judd ci àdduna bi nga leen di xool ñu lay xool ngay gis ñoom gisuñ dañu mus a defee benn conférence benn île bu tudd Gorée ñu dem mu commencé di taw balaa conférence bi commencé nit ñi ñëw muy taw ci biir taw bi ni mu feesee mbooloo mi muy wàcc Ambacadaire ñu jëm ci place bi ñuy defee conférence maa ngi séen ci biir mbooloo mi benn lafañ waxuma la tooy gi mu tooy imaginer ci taw ndox mi di taa muy raam ci suuf si ak yéreem yi ak tooyaay xepp bi ñun même bu ñu tooyee sax suñu yaram bokk taxul suuf mais moom xoolal ci suuf si lay raam loxo yeeg tànk yi mënul dox day raam ma xam ne kon doomu aadama war na sant yàlla ñaata nit ngay séen loolu tey ci mbedd mi léeg-léeg ngay dox ba caa nga gis benn waaye bu toog ci kaw jolu mbalit di tibb ci ceeb bi di lekk te di la xool yow sa xel a ngi tey moom xelam teyul moom mu ngi tibb di lekk te ceeb boobu amaana am na fa fukki fan ba am na yeneen yu ko rax mais moom mu ngi koy tibb di lekk yow nga romb di daw ak di gëmm sa bët xoola bu la yàlla nattu woon nga nekk foofu kooku nag am na benn waay buy nekk fi booru police bi saa yi ma ko rombee moo la yonent bi ne su ngeen rombee ku mel noonu wax leen alhamdulillahi allazi afaana mimma ibtalaahu wax leen maa ngi sant yàlla mi ma musal ci natt bi mu nattu kii di nga suñ diine mais nit ñi xéewal yi leen yàlla defal jàpp nañ ne tey ku yeewu ci ñun amul xaalis rek aw ma dara moo tax koo ne ça va sax mu ne non sénégalaise maa ko am saa yoo déggee ku ne sénégalaise maa mooy baaxul sénégalais moom lu néew ci sénégalais nga naan ça va ba mu ne alhamdulillah alhamdulillah moom koy koo ne ça va rek wuu ça va pas temps yi dara baaxul yépp a bloqué day bloqué rek nag comme du ngeen sant yàlla day bloqué rek foog ñu sant yàlla xam ne sant yàlla du am am kese li ci jiitu mooy wér ñaata nit ñoo tëdd hôpital da nga gis te koo xam ne xaalis bi mu yor wala waa ji ñu doon suul tey fan la feebare du fi la feebare dem fajo ji France est-ce que wér na lan moo ko mujj daal mooy dee mi ngi nii te pourtant fu yëpp la romb dem fajo France fajo ji xoola yow xoolal ñun xoolal man xoolal yow kon nanu sant yàlla nit ñi dañuy war a sant xéewal yi leen yàlla defal suñu borom subhanahu wa taala mu ne walisa wa lamma zukira alayhi salatu wasalaam ma huwa alayhi min addiini alxanif allazi huwa diinu rusul talattafa fi xusni l ibtidaal ala fasaadi ma alayhi qawmun min ibadatil asnaam mu ne Yusuf bi ko gaa yi laajee seen ñaari question yooyu xoolal kañ lañ ko ko laajoon sànq mais tëbul rek ne leen nàngam ak nàngam ak nàngam la lu tax dafa am lu mu bëgg ci ñoom ñaar ba bu paree di leen tontu après tontu bi lu ci mën a am ñaar ñii dinañ nekk ay jullit loolu mooy misaalu wootekat ci yoonu yàlla da ngay profité ci occasion yi la yàlla di may nga ciy jàllale kàddu yàlla subhanahu wa taala ma nga leen yaa saahibay sijin yéen mbooloo mi ma bokkal nekk ci kaso bi yéen sama ñaari gaa yi a arbaabun mutafariquna xayru amillaahi waahidul qahaar ndax yàlla yu bari yu tasaaroo ak benn yàlla ban moo gën a arbaabum ndax ay yàlla mutafarriquuna yu tasaaroo gis nga boo gëmul yàlla yàlla yu bëri ngay am boo nekkee bokkaalekat xam nga sénégalais dañoo yaakaar ne ñoom bu ñu gëmul yàlla sax wala bu ñuy bokkaale gëm nañ yàlla déedéet sooy bokkaale mënoo gëm yàlla kese lan moo tax nga gis waa ji mu yeew jël xar yóbbu ko ba géej rendi ko da nga gis waa ji mu yeewu takk lam ci loxoom lam bu ñuul kukk da nga gis ko mu takk benn pitaaw bu weex da nga gis ko mu jël ay nen ñëw ba ci Carrefour di ko fa teg da nga gis ko mu rey xar di sangoo deret bi da nga gis ko muy muy muy wër guy di wër guy wala mu dem ci bàmmeel lu tax parce que dafa gëm ne loolu daf koy jëriñ kon loolu yàlla la ci yow moo tax soo gëmulee yàlla lu ñu la wax def ko nga def ko te kenn ci ñun bu bëggoon tukki mu dem gisaanekat yi gisaaneel ko ne ko da ngay bàyyi ba guddi ba ñëpp nelaw ba kër gi ñëpp tëdd nag tension de ñëpp tëdd nga yeewu ni la sa yaay juree yéeg ci kaw garab gi sangu wàcc danga koy defal doo ko def billaahi ñëpp ci ñun bu leen ko waxee dañ koy def loolu mooy won ne yow gëmoo yàlla kese boo gëmoon yàlla da ngay xam ne kii lim la sant du diine doo ko def et puis doo jóg sax di tukki di dem ci nit nan ko seetal ma yoon bi baax na wala baaxul kuy tukki lan lañ la sant mooy ginnaaw ba nga jëlee say matukaay defal ñaari ràkk tàggul yàlla dema sa yoon mais da ngay gis sénégalais bu ñuy tukki sax mais gauche la ñuy nuyonte mais gauche koo gis muy nuyoo mais gauche day tukki yenn saa nga gis ko mu rëdd benn rëdd benn ñaar ñett ñeent juróom juróom benn juróom ñaar juróom ñett juróom ñeent mu arrêté ñu ne ko boo demee ba ñëwaat nga bind fukkeel bi day wàcc oto bi rek daal di ne nii benn rëdd nga naan waa kii lu muy def fekk bi muy dem la defoon juróom ñeent ñu ne ko juróom ñeent fukkeel bi foog nga ñëwaat rëdd ko gis nga di nga ñëwaat ba fii rëdd ko gis nga bokkaale yooyu ko defee nga am pas-pas boobu soo ci dee de safara nga jëm parce que da ngaa weddi yàlla moo tax dafa am mbir yoo xam ne dañ koy def foog ñu bàyyi xel ne du diine te lu dul diine bu ci doomu aadama nekkee bu dee dee dem safara te dafa bëri ci suñu société bi dafa bëri foog ñu bàyyi xel ne mbir yu bari bari yu ñu dugg tey du diine moo tax mu ne leen yàlla yu tàqalikoo yu baree bari xayrun moo gën amilla wala yàlla kese sël moo gën tontu bi mooy lan gis nga ba mu leen di wax yàlla mu ne alwaahid mu ne leen kenn alqahar xam ngeen lan mooy qahar mooy koo xam ne lépp ci suufam la nekk lépp moo ko noot lépp loo xalaat rek mu ngi ci biir yàlla moo ko noot loolu mooy alqahar moom ngeen di wax ki yor puissance lépp moo ko yor doole ci kan moo ko ëpp doole pour ngeen dégg misaal bi mooy ku mu neexul bul dox ci suufu yàlla bi dama nga dox beneen suuf ku mu neexul bu la asamaan tiim demal beneen asamaan tiim la nga dox ci beneen suuf loolu mooy alqahar mooy li mu la teg mënoo ko teggi sa bopp lu ko neex mu def ci yow parce que moo la noot gis nga bi mu leen di wax yàlla pour waxu leen yàlla yu ndaw ndawaan yoo xam ne mais daf leen di wax yàlla bi nga xam ne moo mën lépp est-ce que yéen am nañ ku mën lépp amoon na fi benn théâtre benn waaye bu doon wax ne moo mën lépp wala ah seetaan ngeen ko waa jooju doon wax ne man maay badu mën lépp fu mu mujje bañ ko ne ràpp ci kaso bi mu ne nii jàpp ci gir yi mu ne ah ndeke man mënuma lépp ndeke mënuma lépp kenn moo mën lépp mooy allahu subhanahu wa taala keneen mënoo dara ay wax la rek suñ la ko waxalee tamit dañuy xam ne dañ lay jaay rek mais xam nga ne mënoo ko mbokk yi yusuf ne leen maa taabuduuna min dunihi illa asmaun sammaytumuha antum wa abaaukum ma anzala allahu biha min sultaan in ilhukmu illa lillah mu ne leen maa taabuduna jaamuwu leen min dunihi leneen lu dul yàlla illa asmaun lu dul ay tur rek yusuf wallahi aaya yi mu doon wax boobu fekk na lislaam ñëwagul boobu fekk na muusa ñëwagul isa ñëwagul waaye xoolal tey mi ngi mel ni ñun ñii lañ koy waxal li ngeen di jaamu ay tur la rek yéen a yéen a fent tur yi tuddee ko seen bopp waaye xam ngeen ne du yàlla Sénégal groupe boo fi gis rek am na tur ñoo créé tur yi waaye tur yi amul ci lislaam mbooloo moo fi gis rek wala koo fi gis muy dox rek bokk na ci benn mouvement wala benn tarixa boo xam ne dañoo am tur wala mu ngi nii maa taabuduna min dunillah topp leen lu dul yàlla illa asmaun lu dul ay tur yoo xam ne sammaytumuha yéen yéen a ko tuddee seen bopp antum yéen ñi wa abaukum ak seeni baay yi leen fi jiite woon li ngeen ñëw fekk seen baay yi tudd tur yooyu ngeen jaar ci li alxuraan rek moo ko ñeme wax su fekkoon ne du aaya bu ñuy wax di ko firi ñu ne kii dafa am ñu muy gis nga kii kii day diigaat diingatuñu kenn ku ko weddi dama nga jëli kaamil traduire bi nga xool ko en français kaamil yaa ngi nii mun naa leen wax aaya bi bu ngeen jógee ngeen doon xool aaya bi mi ngi suratu yusuf aaya 39 aaya 40 waaw mi ngi suratu yusuf aaya 40 sunu borom nee na maa taabuduuna topp leen jaamu leen min dunihi keneen ku dul moom illaa lu dul asmaun ay tur yoo xam ne yéen ñi sammaytumuha yéen a ko tudd yéen a indi tur yi antum yéen ñi wa abaakum ak seeni bàyyi yéen a tuddal seen bopp tur yi bu yàlla yemoon fi rek doy na waaye yemu ci mu ne maa anzala allahu biha min sultaan yàlla wàccewul tur yooyu indiwu ci benn lay ma anzala allahu biha min sultaan yàlla wàccewu ko yàlla benn tur la wàcce bu mu wax jullit ñi tudd leen ko benn tur mooy ban muslim benn tur la yàlla wax na ngeen ko tudd yéen ñëpp bu ñëwoon léegi ci jàkka ji ne ne yow noo tudd lan nga da ngaa war a wax muslim ñu ne yow nga ni muslim ñu ne yow muslim yow muslim waaye tey boo ñëwoon yow laayeen xaadir yow canaba yow njaasaan yow murit yow alfala yow ibaadu yow ki ba ba fii yëpp jeex billaahi booy noonu léegi ay micro di laaj yow foo ba ne man akasa commence ku nekk di wax fu mu bokk fekk waroo wax ne fenn nga bokk bokkoo fenn fu dul lislaam ñu ngi nii ci biir jàkk bi ñun ñëpp kan ma dul jullit jeex na tout court ñëpp ay jullit lañu gis nga amul benn couleur bu kii di sol nga xam nangam la kii kii ñun ñëpp ay jullit lañ lii la yàlla bëgg muy ñëpp dañ nekk jullit waaye bu nu amee ay ay ay tur rek barrière am na barrière am na taqaliko am na ñàkk yërmande day dugg ñàkk ndimbalante day dugg farfarloo day dugg te yàlla bëggul loolu moo tax mu ne yàlla wàccewu ci benn lay te su ngeen bëggee xam loolu mooy inil hukmu illa lillah atte yàlla rek moo ko moom kenn warul atte ku dul yàlla foofu tamit beneen problème la da ngay gis dëgg da ngay dugg ci dëkku lislaam yi nga fekk atte yàlla moomu ko dafa am sax lan ministre de la justice ban justice la allah occidental ñu jël jullit ñi di leen ko àtte bu jullit reyee nit ñu ne tëj nañ ko cinq ans bu jullit sàccee ñu tëj ko deux mois te inil hukmu illa lillah amara alla taabudu illa iya amara mooy la mu ne damaa joxe ndigal ndigal laa joxe man yàlla amara alla taabudu bu leen topp bu leen jaamu illa iya kudul moom loolu mu wax rek daf leen ko bu leen def lu keneen wax mu ne zalika diinul qayim lii mooy diine bu jub bu ngeen bëggee xam ne yeneen ci diine wala nekku leen ci diine mu ne lii ma leen wax zalika lii yusuf mooy wax ak gaa yi de mu leen zalika lii ñu ne ah mu ne diinul qayim mooy diine bu jub walakin aksara nnaas laa yaalamuun sànq lan la waxoon walakin aksara nnaas laa yashkurun fii mu ne walakin aksara naasi laa yaalamuun xam nga lu tax fee mu ne laa yaskuruun fii mu ne laa yaalamuun lu tax kan moo may wax lu tax ku may wax lu tax fële mu ne walaakin aksara naasi laa yaskuruun fii mu ne walaakin aksara naasi laa yaalamuun lu tax fële xéewal lay wax ak nit ñi fii xam-xam lay wax ak nit ñi parce parce que problème mu justice la xam-xam la fële xéewal yi leen yàlla defal lay wax kon xéewal lu ci war mooy sant fii mbirum xam-xam la mbirum atte la atte balaa nga koy def lu la war xam ma dama ne wala gis nga mujizatul quran kéemtaan yi alquran di jox nit ñi yàlla subhanahu wa taala lépp lu muy wax aaya bi foofu lay daanoo mu ne walakin waaye aksara naasi li ëpp ci nit ñi laa yaalamuuna amuñu xam-xam dañuy xëy rek di def lu leen neex di làmbatu waaw inna wajadna abaana ala umma ñun fekk nañu sunu ndey ak sunu baay lii la ñuy def rek ñun tamit ñu daal di nekk ci loolu mbokk yi lii moo doon sunu darsu tey ñaan yàlla subhanahu wa taala mu fekk loo ñu àllarba ak jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu